ngay eh, fi nga dëkk. waaw Yoff Ndingler. d'accord ñu fekk la ci daral bi ngay jaay xar ana yan difficulté ngeen di jànkonteel ci daral bi. waaw bon ma avant tout maa ngi nuyu ah di waa Yoff gépp particulièrement ah, waa Ndingler. Mhm. ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu abal terrain bi pour ñu jaayee fa mhm. waaw difficulté yi moom bon bari na bariwul parce que xam nga ku jóge ci kër rek ñëw foo xamante ne. Mhm. amul dara loo lu fa nekk lu ne rek yaa ko fa def. difficulté yi day am waaw parce dañuy am problème ndox xam ba pare nekkin bi neexul li ñuy utiliser dafa si ndox dafa bari mooy loolu euh, ñu gis ne yokkute li nga xam ne moom mooy ripaas bi euh, euh, moom waaw loolu moom dëgg la moom aliment bétail bi moom ren jii moom ku ko xam xam ne fi mu àgg nii masu faa c'est la première fois mu àgg si ah si ñun boog bi ñu juddoo ba léegi comme ñun ñoo judd bi ñu juddoo ba léegi moom lii mu ngi parce que saaku kooraay bu demee bay jër dix huit mille loo xamante ne huit mille cinq cent la doon jër bu jëkk saay dem dix huit mille saaku ripaas bu mokk bi nga xamante ne amul dara amul benn vitamine te jër dix mille franc wala douze mille nga xam ne loolu cher na waaw ah, te loolu nag foog mu àgg si xari parce que xari moom la ñuy lekk xar dañuy dundee mboq bësi blé ripaas mburu mhm. te éléments yi ñuy utiliser pour xar di lekk yëpp dafa cher yëpp tey jii nii euh, gis nañ li nga xam ne moom mooy euh, xar yi nga exposé fii di ko jaay euh, bi ci gën a ndaw ñaata lay jar waaw bon bi si gën a ndaw moom mu ngi jar cent dix mille cent dix moo fi gën a ndaw léegi bi nga xam prix bi nga xam moo gën a mag nag waaw bon dañuy jaay day day dem ba parce que jaay nañ fi jaayagul nañ fi benn bu jar un million. dégguma la de. jaayagul nañ fi benn bu jar un million. nu mu xar boobu xanaa nag la. waaw mais xar bu mag la rek. waaw bu mag la rek. te pourtant am na yu ko fi gën a seer yoo xamante ne moom moo leen ëpp mais yooyu ñoo ko gën a seer. Mhm. waaw. Euh, ñu gis ne dafa mel ni xar yi xaru la de. waaw xar yi moom ñun moom xaru rek lañuy jaay. waaw xaru kese la jaay. loolu moo tax ne muy xaw a seer ci nit quoi parce que xam nga xar boo téye ay. huit mois neuf mois nga téye ko si kër muy lekk lekk goo xamante ne yow mii di nit ki sax amaana boo koy lekk du bari moo tax faaw mu seer. wante est-ce que tamit du ngeen di sóoraale néew di doole yi nga xam ne ñoom tamit euh, bëgg nañoo am xar euh, te yoruñu li nga xam ne moom mooy xaalis bu bëri. non ñooñu ñu ngi leen di sóor bu baax parce que loo gis rek comme book ñun ni ñuy liggéeyee dafa am fu ñuy commencé di wàcc di wàcc ba egg foo xamante ne. mooy comme bu ñu ñëwee dañuy déparé si ñii di jënd xar yu mag yi ñu njëkk leen a indil seen xar yu mag ba pare après ñu xool yi stock pour parti parce que affaire bi du du man mii kese quoi staff la boo xamante ne yaatu na waaw man maa si gën a bokk naa si ñi si gën a tuuti wala ñi gën a nekk si gannaaw mhm. waaw mais bari nañ daal groupe lañ boo xamante ne ñun ñoom ñoo bokk kër mhm. bokk benn ëtt bu ñu dëkk ñoo siy jàpp bu baax moo tax xar lu loo loo yor rek dangay am xar. man su ma yoroon tey soixante quinze bi lu tabaski bi di gën a jege rek loo yor ngay gën a am xar man su ma yoree bi dina am xar man nga am xar mais selon si xar ba ni muy toll est-ce que ah. est-ce que di nga nangoo yóbbu sa bu ah, bu yooyu ah, mu ngi noonu nag comme yow xar bu baax ngay wër mm. kon foog poos si baax rek gën a am dara rek euh, ban message ngay lancé ñi nga xam ne tey jii nii bëgg nañoo jënd xar te tey amaguñu moyen waaw bon nañ ñëw rek ñi nga xamante ne amaguñu nañ ñëw rek parce que ñun moom ah. euh, nit moom li ngay liggéey wala si li nga nekk si nga mën a dimbalee ñi nga xamante ne seen loxo jotul ginnaaw parce que ñun dañuy def am na ñoo xamante ne leen di jox xar ñu topp si ba ren am na ñoo xamante ne daaw lañ leen joxoon ba tey jii ñu ngi fay ma dalaguñu parce que loolu mënul ñàkk si dëkk bi ñu nekk léegi nii parce que da ngay nekk si kër sa mbokk amul mais foog nga dimbali ko si yow li nga am léegi boo ko joxee muy fay ndànk tey lan ngay wax euh, Macky Sall yéen ñi nga xam ne yéen ay éleveurs yi. waaw bon ñun éleveurs yi moom dañ bëgg mu wàññi aliment bétail bu baax a baax a baax loolu moom bu ñu ko defalee moom. Mhm. non jël quoi parce seer na façon seer boo xamante ne mhm. doy na waa parce que xam nga ta affaire bi dafa am ay xale yu ay jeunes yu siy liggéey yoo xamante ne ñii dañu yar ay ganaar ñii di yar ay xar ñii di yar ay pitax ñii di ay nag xam nga. yooyu noonu yëpp léegi boo bëggee seeral affaire bi daanaka ñu si duggoon ñëpp dañuy daw léegi semeur bi commencé waat moo waral gars yi di wàcc si tali bi de di xeex ñoom seen affaire yooyu noonu parce que gisatuñu li ñuy liggéey gisatuñu seen bopp da ngay jënd genaar saako bi bëgg jër vingt mille franc loolu boo ko jaayee loo si am te Sénégal xamuñu ginaari trois mille lañ xam trois mille cinq cent léegi bu affaire bi àggee foofu mieux vaut que léegi dangay ngay retiré wu bàyyi ba affaire bi wàcciwaat nga jaajëfal bu léegi bu dul loolu moom ñun ñi nga xamante ne ñoo féete côté Yoff ñun éleveurs yi féete côté Yoff am nañ benn am na benn affaire bu ñu bëgg mooy terrain bi ñu nekk nii dañu koy abal terrain bi terrain football la seeni borom bientôt war nañ kaa mën a liggéey pour mu doon stade xam nga te bu boobaa ñun amatuñu fuñ jaay ay xar te ñun Yoff lañ dëkk moo tax nag dañuy wax président Macky Sall collectif bi nga xamante ne ñun ñoo ko moom ñun ñi fi dëkk même bu fekkee moomuñu ko sax ñun ñoo fi gën a jege ñun la gën a jege te yaakaar naa gën a jege moom gën a yey waaw ñu jël koo xamante ne ñu di ko jox ñoo xamante ne ñoo ñu xaalis am nañ ay kër seen i dëkk comprendre ñu bàyyi ñu ñun ñi nga xamante ne ñooy néew ji doole ji amuñu ñu bëgg a jël suñu ay terrain muuroo ko léegi ñun ñu ngi ci soxla espace boo xamante ne dañ fa bëgg a def daral boo xamante ne day continuité man mënuñu ko am parce que terrain bi léegi mu jeex léegi seen borom nangu ko ñu ngi leen di ñaan nag ngir yàlla li la war a suuli bu ñu manee daggal si biir collectif bi ñu collecté nii pour seeni doom seeni i seeni seen da si liggéey ñu defal ñu ko te yàlla loolu moom ñu ngi koy message boobu moom ñu ngi koy lancé Macky Sall la autorités yi nga xam te ne ñoo dëkk Yoff jaraaf yi borom doom bi tànk yi ñoom ñun ñu ngi leen koy lancé ñu jàppale seeni doom si collectif bi ñu man fi am terrain bu ñu jaayee xel mu doon daral boo xamante ne day continuer du opération tabaski kese lañ siy def ñu leen koy ñaan. d'accord ñu ngi dina la dégg incha lay nuyu. ñu ngi lay ziar soxna si. Euh, tur bi naka la. Gora Diop. Euh, Gora Diop ñu fekk la fii ci daral bi euh, ñu bëggoon a xam rek daral bi yar xar yi ndax xaru yar la wala. waaw macha allah wax dëgg yàlla fii moom ku fi dugg rek sa xol seet mhm. loolu dem nañ sax ba di ko waaye naan boo bëggee xar bu baax xaru yar bu baax. ñëwal fi nga xam ne mooy dara lu Yoff loolu moom euh, waa Sénégal ñëpp xam nañ ko instant gis nañ loolu gis kañ na ni xar yi xaru yar la xar yi tey jii nii bu ñu doon à peu près maanaam prix bi gën a ndaw ñaata nga koy jaay waaw euh, moom prix bi gën ndaw cent dix mille moo fi amagul waaw bii gën a ndaw boo bëggee aussi tamit ma wax la bi gën a mag bi gën a mag ñaata un million un million pour les cent man un million a jaaxal de est ah. mm. daaw jaay fi xaru deux millions ah yow gisoo laadum yi ñu jaay ay trente cinquante millions loolu doo ko dégg ah la demee. <laughs> mais man dama seetlu que ne sóoraale woo leen li nga xam ne moom mooy néew di doole yi. no sóora sóoraale néew di doole ji moo tax ñu jaay xar cent di mille parce que ren jii ku ñu wax xaru cent dix mille da war a daw jël ko parce que déjà euh, bu ñu duggee si alimentation bi aliment de bétail bi mhm. li doon jar euh, huit mille francs di jar dix huit mille cinq cent ba vingt mille. Mhm. ah li doon jar huit mille cinq di jar ay dix neuf mhm. kon donc euh, bu ñu yaree xar yi indi ko fii nii buñ la waxee ay prix ay cent cent dix mille da nga war a daw profité jël mhm. am na yenn xaru coggal yoo xamante ne dañ koy jaay plus de loolu mhm. mais xaru cent dix mille xaru yer boobu noonu mën nga ko def si ñaari part xaru xaru xaru coggal bi nga jëndee cent cent soixante mille boo ko defee si suuf fees na te booy saaf muy see na boo yekkee sax doo yekk dara ay yax rek nga yax waaw ñu gis ni jamono juñ toll nii mën naa ne lépp a yokku. Mhm. yenn difficulté ngeen di jànkonte. waaw euh, franchement parler fii ci daral bi euh, comme ni nga ko waxee lépp yokk parce que nee nañ yi euh, frontières yi ñu tëj ak ainsi de suite wax yàlla lépp yokk ba si dund gi ñun ñii bu dul xaru yari sax mais de manière générale adduna bi lépp a yokku mais difficulté yi nga xam ne moo ne si daral daral moom bu ñu amee ndox. am courant wax dëgg yàlla aliment de bétail bi ñu wàññi ko wax dëgg yàlla du ñu am benn ak sécurité du ñu am benn jafe-jafe parce que euh, bu xar amee ñun éleveurs yi ñun ñii di jaay lay arrangé gars yi dañuy yaakaar ne bu xar ñàkkee ñun daf ñuy arrangé déedéet parce que bu xar amee ñun dañuy jaay lu bari léegi loo plus que ngay jaay plus que ngay am bénéfice mais bu xar manqué doo am loo jaay mhm. kon donc yow doo am bénéfice bu bari souvent nag nit ñi dañ naan euh, xar yi bu manqué rek day arranger éleveurs yi parce que seen xar yi day jeex mais non au contraire ñun comme euh, l'année passée mm-hmm. SBI nii fekk ñu ngi ay xar yu bëree bëree bëree bëree yu bëri sax dañuy dem ba obligé di ay barrières collecturé ko place bi xam nga mm-hmm. dugal fi ay xar muy dem di ñëw di dem di ñëw mais fois ci amuñu ko waaw bien vrai que suñu ay xar yi yu bëri jar na xar yële yëpp jar nañ yii aussi tamit yi ngay gis nii yëpp jar na franchement mais bu fekkoon ne xar yi dafa am ñun euh, franchement si la ñuy gën a gën a sentir suñu bopp mm-hmm. parce que bu boobaa dinañ dugal di génne di jaay muy dugg di génne au moins boo amee cinq mille di mille ci benn xar si mille xar mhm. waaw bénéfice mais bu xar manqué benn cinquante xar ngay jaay mhm. xar bu nekk nga am si dix mille quinze mille bokkul ak bële <laughs> noonu la fa demee mais suñu ay difficulté wax dëgg yàlla courant la ndox sécurité aliment bétail bu aliment bétail bi wàññee ko xar yi dinañ wàññeeku prix yi yemawaay lañ leen joxe euh, bu ñu amee euh, ndox aussi tamit dina dina wàññeeku parce que mënoo jour ngay jënd ay bërigo ndox bërigo benn bërigo bu ne Ah, am na ñu koy jaay ay deux mille ça dépend parce que bu manqué ba manqué gars yi nan la robinet tëj na te obligé nga jënd leen parce que xari mënu ñu nekk fii sans ñu lekk mhm. waaw sécurité aussi tamit euh, yoof moom dañuy sant yàlla sax su côté sécurité euh, gendarmerie nationale ñu ngi fi mhm. mais même bu dul loolu yoof ñun amuñu problème boobu noonu mhm. mais euh, baax ci baax des fois yi nit yi di ci di ci bàyyi xel di gis sécurité wax électricité aussi parce que dañuy xëy di jaay guddi ak bëccëg am na nit yoo xamante ne ñoom guddi rek la kon fii bu la demee waaw amaana duñ mën a wàcc di jënd mm-hmm. wala li ñuy jënd duñ ko gis dañuy préféré dem ci feneen waaw mais bu ñu amee loolu rek wax dëgg yàlla euh, ñun euh, ça va euh, aussi tamit déggoon nañ que ne li nga xam ne moom mooy frontière Mali bi mm-hmm. ubbi nañ ko mm-hmm. donc que li lim bu takku dina jóge foofu nga xam ne moom mooy Mali pour xar yooyu ñëw fii ci Sénégal est-ce que gisagum ngeen waa ñun li ñu jotagul suñu ministre tutelle muy euh, wax dëgg yàlla Aliou li ñu jotagul ci moom mm-hmm. euh, info yi ñu jot ci moom mooy cinq mille cent moutons dina jógee Mali ñëw mm-hmm. mais loolu doyul parce que Mali dañ doon indi plus de quatre-vingt mille mm-hmm. têtes te xar yi dañ naan Mali mais du jógee Mali xar yi Niger lay jógee Niger la doon jógee jaar Mali escale door ñëw fii parce que boo xoolee race boobu noonu Mali moomu ko rasu Tchad la ak rasu Niger mooy ñoom azawad yeeg euh, ñoom euh, Mali ñoom bali bali lañ moom. Mhm. mais azawad yi ngay gis ñu si bëri Tchad lay jóge euh, ak Niger. Mhm. azawad tchadien xam nga dem na ba tudd tchadien ñoom foofu lay jóge quoi mais 5000 moutons 5500 moutons mënul mhm. Sénégal matul Sénégal Mauritanie dara ñëw Niger ñëw Mali ñëw Tchad ñëw terewul xar di manqué kon kenn kese bu ñëwee ba pare li mu indi mu minime. kon euh, wax dëgg yàlla euh, te ñoom xar yi ñuy indi ak ñun ñi ñu soxla dëgg ba léegi nii nii mënuñu mënuñ si am luñ ci bëgg parce que fii nii am na ñoo xamante boo leen tegeree xaru coggal dañ naan bëgguñu ñoom xaru yar lañ bëgg waaw te euh, ñun daanañ faral di def ni comme tabaski bu desee ay 4 mois mhm. maximum 6 mois ñu dem Mali dem jënd fa ay xar ñëw fii xontu leen mhm. mooy des fois ngay gis ay bali bali yu gand yu suur yi ngay gis fi mhm. dañ jënd foofu noonu maximum 6 mois avant ñëw takkaat ko fii nii xontu leen xontu leen takk leen si ko waaw yooyu moom yoo boo leen duyee <laughs> non yow da am da am yow daal li nekk sa poos bëgg xar moom rek bul yor bul am bul yor cent mille franc bëgg xaru trois cent mille non mais soixante quinze mille xaru soixante quinze mille moo la siy génne. man bëgguma xaar diri kii de. Ah. kay jàppal ma sa mbote bi <laughs> yow daa xam naa <laughs> <laughs> euh, euh, mhm. ne. Euh, ñi waaw ñun moom li ñuy gën a wax suñu ministre tutel sax la ñuy wax parce que bu ñu waxee moom wax nañu Macky Sall. Mhm. waaw président Macky bu ñu waxee suñu ministre tutelle muy Aly Saleh li ñu koy wax mooy pour mu jàppale éleveurs yi. éleveurs yi soxlaawuñu xaalis ñun soxlaawuñu ku ñu joxe ay xaalis nii noonu non. Mhm. xam nga comme nii bu fekkee dara courant bi ne teel a ñëw comme buñ nee cëpp courant bi ñëw ndox mi ñëw cëpp aliment de bétail bi ñëw. Mhm. parce que bu fekkee ne loolu la ñuy subventionné éleveurs yi comme aliment de bétail euh, nga bàyyi dix jours. Mhm. ñun ñu ñëw fi un mois nga bàyyi dix jours des si tabaski bi nga indi ko ban sens la am. amul benn sens après xoolal dafay des ñu yóbbu ko suñu ay kër. di ko xontee suñu xar yi ne wala ñu koy obligé di ko joxe waa dina ne mais amul sens. parce que fii dañ fiy ñëw ñun bu ñu ñëwee cëpp li ñu njëkk a jënd mhm. ay da ngay fere cent mille si aliment da fere cent mille muy waaj a jeex nga dem quarante mille cinquante mille ainsi de suite ainsi mhm. ba ñoom ñu ñëw te des fois aussi tamit euh, ñu leen niñ wax ñuy wax ni euh, militaires yi mhm. ministre muy wax suñu militaires yi ñii nga xam ne ñooy jaay aliment buñ ñuy subventionné nañ ñu jox qualité bu baax loolu aussi c'est important nañ ñu jox qualité bu baax parce que fan yëpp gars yi ñu ngi jooy naan aliment bi ñu jox ñu ngi daw biiri xari mu ngi rey xari mu ngi def nii mais loolu amatul sens aussi yow da ngay subventionné nit li nga koy subventionné mooy lor ay xaram mhm. amul sens nañu jox aliment bu baax ñun yàgg nañ seetlu loolu aliment bi ñuy subventionné mhm. ak bi nga xam ne moom la ñuy jaay ñoom boo ko jëlee teg ko nii teg ko sa ñaari loxo comparé ko du yem si gis-gis du yem te loolu day lor xar yi mhm. fan yi yëpp am na fi fan yi ñu ngi naan aliment bi baaxul aliment man sànq xam nga na laa def mhm. damay jël aliment bi ñu jox dem si borom aliment bi changé ko ah waaw duñ lor suñu bopp tamit voilà dañ ko changé c'est dama dem jox ko lii mu jox ma beneen repas parce que il paraît que repas bi ñu subventionné pour nag yi la dem nañ sax ba bind si nag bi grand nga jël lool nga jël repas nag leen ci bind <laughs> donc ah loolu la ñuy def de <laughs> nag yi daal ak fas la ah. waaw de sérieux ñun ñii suñu yaay xar deux. waaw noonu la demee waaw wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla suñu ay xar fii nii majorité bi jaar dañu ko bàyyi fii dañ jëndiwaat sax dañ demaat jëndiwaat ay xar pour teg fii parce que euh, c'est pas intéressant ñu euh, indi ay xar jaay ko ba pare téye ko fii di ko dundal di leen xool ku ñëw ñu ne la jar na mu dem yoon non dañuy yi indi yeneen teg ko aussi tamit pour nit bu ñëwee bëgg ko ñu présenter ko yeneen yi parce que euh, Sénégal léegi amul espace surtout Dakar mhm. amatul espace da ngay gis ku yor appartement am xam nga ne yoroo appartement ba pare bëgg fa dugal xam ah xam nga loolu mënul nekk mhm. léegi te obligé nga bàyyi ko fi nga ko jëndee ñu teewal la ko ba jour yi ñun dañuy nekk fii nii nii nii euh, ba 6 heures du matin jouru tabaski parce que am na ay nit yoo xamante ne euh, suñu ay client lañ mhm. te dañ fidèle si ñun aussi dañ dem ba surtout leneen lu doo xar ñoo leen di teel ba ay 5 heures heures du matin ñu dem livrer leen ko te bu ñu demee seen buntu kër lañ koy takk billaay ndax ñàkk ñàkk espace wax dëgg yàlla loolu dafa métti trop trop trop waaw naa ni moom euh, nañ ci bàyyi xel daal mm-hmm. war nañ ci bàyyi baax waaw di leen jaajëfal aussi tamit univers info ah mm-hmm. euh, di leen ñaan yàlla mu nekk télé bu mag a mag a mag a mag wër adduna bi yëpp ba ñëpp wax dëgg yàlla euh, di ci bàyyi xel waaw ngeen am fréquence boo xamante seen fréquence bopp la di si am aussi tamit ngeen am affluence bu am doole euh, di leen remercier seen déplacement mënoon na leen si bañ a fekk mais euh, déplacé wu ngeen euh, bàyyi seen temps ñëw di li nga xam ne moom la éleveurs yi di dund lan moo nekk si terrain bi ak éleveurs yi kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla daal na def univers info télé bu mag a mag a mag di di ziar grand bi ci ginnaaw lépp yow la <laughs> a baax. Euh, tey ñu fekk la fii euh, ci daral bii nii. Euh, xar yi ñu ngi jar. waaw xar yi ñu ngi jaay nànk nànk ah, because mooy loolu parce que xam nga gars yi nag comme Sénégal yi moom dañuy bëgg a dernier moment bi rek ñu dawandoo songandoo ko parce que boo xoolee ñii di yor xar yi yëpp ay appartement la ñu yor te am na ñu bëri ñoo xam ne tamit na nañu ay xar parce que because gars ñi bu ñu gis ñuy xar yi rek foog ne xar yi jaruñu ah. Mm-hmm. genn wàllu xar yi yëpp jar nañu ah. mooy ndax ñu bëri ah parce que because boo waxee dañ naan ah fii de romb nañ fi fii am na ay xar fekk na sa waay genn wàll gi yëpp gaa yi daw nañu bu yàgg gaa yi dew jënd si xar yi. d'accord cent jii nii boo ñu mënoon because ñun am nañu ay classe cent cent vingt mille ba jàppee bàyyi ba cent cinquante ça dépend daal ba un million. because mooy loolu ku nekk à sa poste fu mu toll rek foofu la loolu la def. parce que tamit ñun ay borom kër la force ñu jàppale borom kër yi parce que tamit bu ñu basé wu si benn côté boo xam ne rek dan naan non nu nañu frontière bi wala jàpp bari xam nga tey lu ñuy wax si ay mari ak tamit lu génn xaal si mari tey xajul sax géejawaay mm-hmm. waaye géejawaay buñ ko tërësee sa banlieue bi sax sa waay mooy loolu kon nañu defandoo affaire bi tamit xam nga jàppale ñi gouvernement bi tamit ñu jéem wax si affaire dund bi xar yi dund bi cher na trop natt rek moo ne si dernier ah, parce que du lenn loo si am da nga siy sonn di si def vingt quatre heures sur vingt quatre yaa ngi si xar yi waaw ah, waaw patient la daal da ngay am patient xar moom comme nu may wax rek patient rek ngay am boo amee patient rek mooy loolu waaye li ngay def si xar yi xar yi boo ko jëndee nii li nga siy def sa waay mënoo ko mënoo ko mënoo ko jaay because mooy loolu parce que tey calculer tey nga jënd benn xar boo xam ne cent cinquante mille xaay bi di lekk chaque jour presque mille francs parce que dina lekk repas dina lekk ngooñ dina lekk yëpp mhm. benn xaay moom nga koy yow ba mu mat at calculer ko ñaata la war a doon mhm. nga tegaat si si cent cinquante mille ñaata lay doon ak sanga yi ak nettoyer mbaar yi jàppal bàyyi because moo tax gis nga dañ si am benn kii rek appay jàppay bàyyi du dëgg gars yi tamit fas ñu jéem a def benn effort boo xam ne tamit effort bi mooy leen jàppale borom xale tamit parce que tamit xam nga boo waxee ñaan non xale yi dafa cher xale yi dafa def nii mhm. xale yi cherul xale yi buñ ko tegoon fan ko waroon teg dëgg barki say naa mu benn mii bu buñ la ko bu buñ la ko jaayee cinq cent mille mhm. danga naan kii lu mu si am matul cinquante mille waaye gëm-gëm la mhm. xam nga affaire yi gëm-gëm la ak bëgg-bëgg natt moo ni si because loolu parce que yàgg nañu def opération because depuis quatre vingt neuf ba léegi kon xam nga ne du tey ah because mooy euh, bu baax. waaw waaw di kontaan si yéen bu baax a baax di wax tamit sama mbokku jaaykatu xar yi nañuy dimbali borom kër yi xam nga. <laughs> xam ne tamit mooy loolu borom kër yi tamit nañuy jàppale borom xar yi gouvernement bi tamit nañuy jàppale. parce que soxla nañ ko. ko soxla jamono ji mu toll nii because mooy loolu. jeunesse si fu mu nekk nii amuñu lenn la muy def coow lu mooy que ne muy si wàllu géej gi di wàllu yëpp da ngay gis koo xam ne gaalam yoo yor ak machine am wala toolam la yor di bay bu bu bayee bi pare sax lu muy ñëkk xalaat pour jënd ko mooy day jën xar bu jëndee xar ne xaar ma teg ko fii pour xam nga rek dajale ko pour après parce que xaalisu poste du xaalis xaalis bu nekkee sa poste rek du xaalis parce que da nga koy lañ te doo ko xam léegi nag foofu nga jënd si benn bagage bu ndaw moo tax gars yi di jënd pa benn benn xar jàppal bàyyi bu kii jotee nag après ñu génnee ko muy baykat bi di mool bi nga xam ne tamit day dem géej gisoo am na ñenn ñoo xam ne campagne bi nii day jeex ñu wut seen ay xar yu ndaw teg ko jàppal bàyyi parce que ay xar yu tudd yëpp parce que ñun opération nii boolal ñu si xar mm-hmm. ñun am na ñoo xam ne opération ma opération moo leen di boolal xar waaye ñun bu opération bi jeexee sax ñun dañu nekk si xaw mm-hmm. waaw parce que dañuy yow tamit benn association fii muy association des éleveurs mm-hmm. da Yoff mm-hmm. environnement parce que ñun environnement bi dañuy jël waaw si ni président di Babacar cew mu doon loo xam ne macha allah ñu ngi kontaan si ñëpp ah. di leen ñaanal jàmm di wax ne macha allah seen liggéey rafet na yàlla na leen yàlla jàppale mu doon affaire boo xam ne chaîne yu gën a kawe si chaîne yi mu doon seen chaîne bi jaajëf kontaan naa bu baax a baax jaajëf. Uh, uh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay soxna si. Uh, tur bi naka la. ñu fekk la ci daral bi ngeen di jaay li nga xam ne moom mooy ay xar njaay bi nu mu fa demee. waaw njaay bi defe ne ni moom def nañ lañu war a def wax dëgg yàlla. Mm-hmm. parce que xont nañ xar yi macha allah di xaar client daal mu ñëw quoi loolu moo des. Mm-hmm. waaw di ñaan yàlla nag mu àggale lépp si jàmm rek incha client yi ñu ngi ñëw. waa client yi ñu ngi ñëw nag mais dañuy ñëw di dem ñi rek seen wax assuré gul quoi. waaw. Euh, tey jii nii bu gën a ndaw ñaata lay jox. waaw samay xar moom bi gën a ndaw xam naa man mu amee cent soixante dix rek damay jaay quoi. Hmm. waaw bi gën a mag. bi gën a mag maa ko gaaree deux cent vingt. deux cent vingt waaw nga koy jaayee. waaw kon tey jii ku amoon soixante quinze mille di nga am xar. ah waaw ak da ngay am paru soixante quinze mille nag moom ngay am. Mhm. waaw parce que xar boo gis rek am na lu muy tollal waaw. Ah. Eh, jamono ji ngeen di jànkuwanteel. waaw fi ne nii coono yi xaw na métti de parce que tàngaay bi métti na loo yor jënde ko ndox gisoo client xam nga mu xaw yeme yéeme quoi mais nag yàlla baax na mm-hmm. ñu ñaan yàlla daal kuy jaay ku nekk nga jaay ba jeexal kuy jënd tamit aussi nga am ñëpp am xar daal incha allah rabbi loolu la ñuy ñaan. Eh, yokkute koy yëg. ngi koy yëg moom métti na parce jënde quatre cent cinquante wala cinq cent mm-hmm. jënd ndox jënd ngooñ cinq mille cinq cent xam-xam mm-hmm. nga métti na quoi.